Ndongo Lo wa am na lu mu takk ci ci ci ginnaaw lu xonq la moom ay peetaaw Ndongo Lo ngay raam Ndongo si Cheikh Tidiane ñaa cey làmb Ndongo Lo ma image bi waaw waaw làmb a ngi ñaa Ndongo lan lay wax moom lu Ndongo di wax waaw waaw aja seex Ndongo Lo ci suuf waaw moo jàkkaarloo ki nga xam te ne mooy Cheikh Tidiane Niang ñi koy wax nink nank ndongo loo ngi noonu cak cak gin cak cak gi cak gi cak gi cak gi cak gi yaa ngoog jëlama waaw <laughs> Allez Ndongo aca Ndongo mais Ndongo lan la waaw lamb rek mais raam bi nga raam fee nga wàccee escalier loolu mu doon lamb waaw ah, baax 26 juin. nin prouvé na jëlaat boppam jël ko dénk ko ku ñuy wax Yanda Diop jëlaat boppam ko ku ñuy wax Ida Ly kon daal lay loolu waxatuñ ko ay na mbattu ca ndax bala may jox alaaj ndongolo ndongolo nga xamante ni na ak champion maa bëri général maa bëri maa bëre gàkku de maa bëre maa bëre maa bëre maa bëre kooku ndongo loola waaye ku muy dajal triple champion d'Afrique Cheikh Tidiane ñaa ni ki nag ay dama ni loolu combat bi commentaire na boppam mbay ana mbay Yékini mbay marqué nga sa empreinte un an d'existence kese macha allah marqué nga sa empreinte ci làmb ji dina neex tey dana à l'assurance dama jëlee nongo daa am client client bu mag la am am na client waaw baax na waaw kon alhamdulilah pour que ah dama c'est où bu ñuy wax ba yëg xale yi beneen bi tey yow tey jii sans promoteur kii la ñu wóor. non non. ci sa ngóor bi nee na nga yëg dafa oo suraat lay wax ci lii ah lii dara lii amu ma si dara <laughs> yow xam di <laughs> goose bi kay xam nañ ka waxatuñ ka donc wuyul dóor lan amul boore amul leneen door mu daanu loolu laa ñëwee ci làmb ngolo bi da nga door mu daanu ma <laughs> la ko wax tey door mu daanu comme dab yow xam nga moom dongolo doo son bi dañ na. waaw waaw. bu ko bu ko lu may tiit man. damaa dégg kii na dalee na ñëpp bi mu yor. nee a daanu moom nee na dafa daanu yàlla mooy maye te xale bëre yàlla mooy yàlla mooy ndam doomu aadama nañu ma jàppale ci combat bi dama ko soxla te bëgg naa ko combat naa te bëgg naa ko yàlla si yàlla loolu quoi loolu doo nga ñu wax mais bi nga wàccee fee di ñëw geste boobu nga def loolu lu mu doon. lamb lamb ni mel bis yi moo ni mel am li nga xam si lamb yàlla jàppale ma si kon mu nangu mu naax saay dama nit ñi jàppale gëstu ma. lan a lan moo la mën a may loolu. si lu war a nekk maa ngi ci yaram ama branlo si combat di ñaanal sama père Birame Ndiaye yàlla fëgg boobu bu tënk jàmm ak salaam yow écurie bi écurie waa sax xam-xam la lamb ji lamb père la. te damaa gis da ngaa ñëw ci la Youssoupha Niang combat bi yaa ko moom waa Grand Mine jàppale leen seen doom waa Grand Mine jàppale leen seen doom yen len lakas fa layiranga jew teen mais ɗaɗa roaciyaam jam ko won boy madi to feso a roaciya in ndam fo maak i o ya weyan tun fop wa simo leng fawe parcelle 1 bo 26 mais o ya dene fop wa simo leng kep ko maaka maak gidma we na fop we anduma fi we anderuma fop mais gidma den wa sipote ke mbarna ngool fop ine ngoya den wa ngoya autorité ke mamada bayin fop ine ngoya den aha gara lasin aseni fop i ne ngoya den combat we andoona yee den ndef Espagne a nanga ndamta i ne ngoya den a maak a mbaag na combat mbaase o leŋ i tu en limeer na fop merci champion bonne chance ok merci jërëjëf waxal ñu ko ci olof a ah? waxal ñu ko ci olof <laughs> dégguma olof nag Ouzin mais nongolo nee na dafa am lu mu liggéey ci làmb du yow yaay tax nit mu nax looy wax ci waaw man tam xam na la laa man combat am nekkul ne moom moom may arrêté man damay xuus jàll dama war a dem si yoon laa nekk moom du ma tiré. lan moo tax moo pied loxo gauche dama koy dóomu daanu lan la. déggu ma. dama dégg ñu ne dama koy la. ah rek entraînement la rek bëre rek comme dab amul leneen. yomb donc loolu dafa am ci lu mu jógee de te dafa bëgg a dellu si waat ci place man nag sama place laa nekk te kenn du ma ko tere damay xuus jàll nekkul ne moom mooy téye incha allah kon jaajëf